Sitting you know asalaamaaleykum mbokk internet yi wasaar laam ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag dañoo doxantu fee di Caaroy Caaroy la ñëw seet si benn sampion mu war a bëre si journée Bawal production ñu ngi lay nuyu tey nag dañoo doxantu fee di Caaroy Caaroy la ñëw seet si benn champion mu war a bëre si journée Bawal production mu war a bëri xale bi di euh, booy Jaxaaw mi Thiès muy Baye Mandione Junior Baye Mandione ñu ngi lay waaw di nuyu sib bi ma set si tey mi wasaare làmb di nuyu ku si mel ni ji sama gaañ la di ko bëggee di nuyu waa Caaroy ñëpp di la wax ne yaa xam nga di wax bi kalimatillahi taamaati kulluhum min sharri maa xalaqa di ñaanal sama papa ak sama yaay yàlla xare leen aljana ak mboolem jullit bi ma fekk waaw di la wax ne yaa ngi Caaroy. Baye defe naa ni sa dernière sortie yaag Ndiaye Tine la woon. waaw yàlla dogal nga am ci defet. Ah. depuis boobu dégguñu la gisuñu la lu xewoon. waaw mais dara. nekk sa entraînement yi rek naa am na loo xam boo si jugee moom wax ju bëri waratu la quoi da nga war a loolu entraînement nekkaat sama dynamique de victoire ndax avant ma avant ma bëree Ndiaye maa ngi tegale sept victoire kon na may ñëw faxas combat bi rek continuer waat sama dynamique de victoire. kon da ngaa demoon liggéey wala adversaire yi ñoo amul woon. noonu man maa ngi fi di entraîné caaray waaw bàyyi ma ñoon zone neexul wutal adversaire moo tax sama dama ciy def li nga xamante ni moo ci war yëpp waaw di nuyu Assane Ndiaye moom mi nga xamante ni. mbëri bëri na trop moom mu taamu ma si tëgg ma maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. mais ñu gis depuis daaw ba nga kiiwee ba léegi ren saison bi yaa ngi doog a bëri. Ah. te booy jaxaw bëri na ci saison bi. Ah. mu nar a bëriwaat toog bu yàgg boobu est-ce que du la pénaliser. non non pénaliser wu moom man moom ay une semaine la rawante rek muy bëre daa bëre man ma bëri su ma juumalee man mosuma ne balance sa saison dinaa bëri benn wala ñaar 2017 laa dugg si làmb yàlla dogal moom 12 combats. kon boobu ba léegi gars yi ñu may teg loxo maa ngi bëri daal. mais est-ce que du risque yow depuis daaw bëri woo. Ah. moom mu jóge ci victoire yow nga jóge si defet waaw est-ce que du risque si yow. non làmb moom risque amul si si làmb quoi. sans comprendre risque amul si làmb man combat yi muy bëre yëpp combat tey mu dee la te yàlla dama si suturaal dama may ndam boo jaxaw dama koy daan si kattanu yàlla war leneen. nga teg loolu fan. sama gëm-gëm ak sama liggéey. damay liggéey te caaxaanuma mais Boy Diakhao aussi day liggéey. waa day liggéey ndaanaan la champion la mu ngi def ay performance am loolu moo ñu boole dama koy nuyu bu baax champion la ndaanaan la mais gudduñ toll ni li may liggéey man maa wànne moom liggéey ko damay ñaan yàlla may ma ndam rek ci kawam yàlla mi moom ndam. lan moo tax nga ne loolu liggéey ko parce que ku jël Baye Major Junior ah. xam na ne ci ay dynamique victoire la nekkoon yàlla def mu am benn échec. Ah. xam nga ne ku ko jël dina liggéey. waaw mais c'est normal kan jël Baye Major Junior liggéey. loolu boo ko defee sa waa kër sa dañuy wax a yow. léegi nga bukkaa faxas romb. dafa yow man su ma la ma la jekkoo lu métti rek laa lay def. moo tax faa ngay liggéey. ah kon lu métti nga ko nar a teg. incha allah lu metti man samay combat yombut sama douze combat yëpp ñëpp samay adversaire potentiel lañ ñi ma daan war naa leen daan ñi ma daan war naa leen a daan kon booy jaxaw tamit garmi la ndaanaan la tamit day day teg bakken bi looloo yoo tax ma jël ko damay ñaan yàlla suturaal ma le onze may ma ndam. lu muy teg bakkan moo tax nga jël ko. waaw. mais est ce que ñeme ngaa samp jaaga ak ba booy jaxaaw. barki Seydina Mohamed laa la watal wasaare site internet moo ma tim su ma naree jël sama tànk bi reculer ko si sama ginnaaw yàlla na ko yàlla may ndam. boo naree reculer reculer si combat bi yàlla na ko yàlla may ndam. li ma liggéey yëpp ma sama waa sax bay anadeeral booy jaxaaw dama koy ñëw jàpp ko daan ko. mais sa liggéey nga xam booy jaxaaw aussi liggéey na. man loolu moo ma concerné li may liggéey mais moom li muy liggéey man loolu sama fou concerné ma liggéey. mais loolu est ce que du la pénaliser wu non ban penalty man mënuma mënuma en arrière kon attaquant la dugal rek laa xam. kon daal jour bi yow da nga ñëw pour dugal. incha allah jàpp ko daan ko xam nga Cees a jugee moo koy dalal fi Dakar fii Pikine ñun fii leen dëkk ci ay waa Dakar lañ dañ koy dalal rek isa comprendre glacé ko bu pare ñu jëlaat kees gi yóbbu ka Cees point. nga jëlaat kees gi. yóbbuwaat ko Cees dañ koy glacé. ah mais loolu mën na de. waaw ni ñuy glacé jëni fii. ah noonu koy galaasee incha allah. kon Baye Mandione kon Boy Jaxaaw moom lu muy ut si làmb ji. ah moom loolu moo moo ko xam man li may ut si làmb wax naa leen ko de dama koy ñëw duma daan ko incha allah dama koy duma daan ko. da koy duma daan ko si kattanu yàlla. ah fi mu teg làmb ji nag du foofu moom xam na xam na. moom fan la ko teg. du la ko wax waaye moom xam na. ah déet yaa ko wax fan la ko teg. non loolu maag moom la concerné. suba dinaa ko seet si. amul benn problème boo ko seetee moom dina la wax mu ko teg. man fi ma ko teg ñëpp xam nañ ko. sinon wàccaay bi sama lii lu ma mayul. Ah. dara mënu may. dama gëm entraînement. d'accord ki gën a sonn ci combat bi. yàlla ko yàlla may ndam xanaa booba gën a dee. ku gën a sonn sonn ko yàlla may ndam. Ah. sinon wàccaay làmb ji nan la yomb na wala yombul. non yombul ndax combat boo xam ne avant tabaski ba léegi su ma juumalee am na mois. kon bu ñu parewul ba léegi dootuñu pare si adduna waaw na ma mosuma bëri combat bu soree nii sax mais saa bi saison bi moo xat. date dañoo bëri te date yi dañoo dem ba jeex isaan comprendre moo tax sax ñuy bëre la jour samedi mais bu parewul daal ba léegi dootoo pare ñun pare nañ lépp combat yi barke alxuraan bu doon suba. wala tey si ngoon ma dem bëri bu doon tey tey léegi nii. pare naa léegi dem bëri ji. billaahi wallaahi. d' accord mais wàllu mobilisation fan nga si tool. waaw sama ko ñoo ngi bu baax dafa mën a jugee ma sax si defet ñoo ngi bu baax a baax a baax baax foo tourné gars yi ngi defar xam nga muy sama gars yi toog ni ñoom mataar xam nga. gars yi sama fan si club bi maa ngi leen ñoom ñëpp fan si club Baye Mandione Junior ñoo ngi waaj ak doole na xam nañ seen mbër man ko làmb li mu laaj duma koy jox ba mu mat sëkk sans comprendre lu ñu yàlla may ñu jël. Mhm. mais victoire moo ñu gënal mais ñoo ngi waaj bu baax a baax a baax di autorité yi ñu jàppale ñu ku si mel ni maire Thiaray sama sortie ma def tudd naa la dama laa campagneel ba nga gagné kon dañoo war a jàppale ah dañoo war a jàppale maître Ndiaye di nuyu bonne volonté Thiaray yëpp nañu jàppale waaw na ñun Thiaray rek lañ am. ñun duñu ay sénégalais ñun waa Thiaré lañ. sans comprendre. doo wa doo waa doo sénégalais. man waa Thiaré laa. Thiaré bokkul Sénégal. non bokkul Sénégal na Thiaré ni muy dundee zone caare ni muy dundee moom rek moom ku dëkkul Thiaré mënoo fay dund. na doo dégg Thiaré rey nañ fi nit agressé nañ fi nit ñun liggéey jaamu yàlla lañ xam kon moo dax ma ne la man du ma sénégalais waa la wax na dégg la laaj waaw du ñuy Thiaré ñëpp di leen wax ñu waaj. mais ma ñëw fii fekk fi ay ñoom Ahmed dem fekk fi sampo yu bëri. ñu dar la. nga bokk ak ñoom di entraîner di waajal sa bis. loolu ban yëgee nga si am. waaw amee dama koy sant bu baax di ko gërëm amee Deme dama koy sant bu baax a baax di ko gërëm ndax otom la ma yàpp di ma yóbbu dine di ma teg lu metti lu ma laaj gasoil te bu ñu jugee entraînement moo ñu jox ñu reer xam nga loolu yombut si kuy waaj combat comme man vraiment combat bi combat la combat bi moom laay bëreel damay ñaan yàlla may ma ndam may kondam ndam ndax sonn na ci man trop suñu benn copain sama grand ba ma ko maa ngi koy ñaanal tamit waaw mu gën a jàpp daal na gis naa ni ñuy taxaw ba ma ko ñu koy sant bu baax a baax ak suñu coach Iba Cissé mu ngi ñuy jàppale mu ngi ba bëccëgal du ñu guddeel Iba Cissé amuñu fayam ak grand Cheikh Ndoye ak Badou Fall numéro 2 mbëri fi na yëpp ay ñoom Papa Kane xam nga ñoom Birisa Mer li leen ñaanal xam nga yàlla may leen ay combat ñoom seen ba léegi ñoo ngi may teg coono yoo xamante damay tëdd ba guddi sax di leen gént kon am na <laughs> coono yi may teg métti mais sant caaray bu baax di leen wax ne ñu waaj la 11 février daal. looy wax Assane Ndiaye promoteur Assane Ndiaye nee na ñu mu tëggee ñoom maa ngi si gën a sonal boobu la may may koo xamul lu ma koy wax nañu jàppale te ki mu tuddee suñu drapeau naka wax mooy ñuy dañu may biyee ndax léegi tuddee drapeau dafa metti da ngay da ngay dañ gis ki euh, ki mu tuddee drapeau ba nga koy gis boo bëree pare nga ci bu njëkkee suñu garant bu leen musaan tuddee drapeau ki mu tuddee drapeau day jël ay moyenam dafa leen may leen ay billets ndax yi mën na ñëw supporter si n'est-ce kon leena yow maa ngi lay woo leena yow leen tuddee suñu drapeau leena xam da ngay make up xam da ko coiffé maa ngi lay woo nga may may billet ndax gars yi mën a dem supporter na soxla nañ ko daal caare dafa metti dafa metti amuñu jàppale de dañuy dem ak suñu doole nii rek billaahi wallaahi mais maa ngi leen woo ñëpp ñu jàppale ma. loo yóbbante boo jaxaaw. boo jaxaaw li ma koy yóbbante bëriwul na waaj ma waaj rek yàlla may ma ndam di wax ni temps yi daa leer nañ booy jaxaaw booy jaxaaw est-ce que mu leer. daa leer nee na dina ma may jabar Thiès quoi yaa ngi suivre boo jaxaaw de. bañ a suivre man ku may bëral yow rek laay suivre de. waaw neen da may lan. jabar Thiès. jabar la may. jabar la may may Thiès loolu da wax. lool da wax nee na may may jabar Thiès. bu la daanee ba pare wala boo ko daane waay waay bu ma waxaat ay waxi bu la daanee de suma ka ko daanee. soo ko daanee waaw comme moom jot naa am. ah man kay xëy na dina ma may loolu la wax de. a ah, baax na looy tàggatoo. waa di sant nag sama mag ma Mandione bu baax ndax moom may jàpp rek moo tax ma nammuma dara Baye Mandione maa ngi lay sant bu baax. billaahi wallaahi ma sa fay bu mag yi meloon ni baa ma kon benn xale benn rakk du échec moom mooy teg ci code barki alxuraan moo tax na mu ma dara entraînement la ma sas lekk ba suur moo jabaram Rose ak suñu waa kër ñëpp suñu taw mañang nabi laay ñëw suñu waa gàlle maa leen sant di leen gërëm dina wax ne daal kontaan na di la euh, rafetlu sa liggéey xam nga dina wax ne affaire yi nii la jàppal rek te woo bàyyi incha allah dina baax di nuyu waa Thiaré encore une fois di leen wax ñu jàppale ma ko waa le incha allah. incha allah. wasalaam jaajëf mbër.